ñaq ñaq ci loo sant bu wér a yëngu yi. nekkaat ci rek comme dab. borom caaroy. borom Fass Mbao borom Tali Karok Tali maam jaar. loolu dafa leer confirmation looloy dëgg. waaw. Ah. lekkati nga avance dinaa mel ni. waaw lekkati naa avance bu Alioune Seye 2. bu Alioune Seye bu doy waar. waaw ndaanaan ni jël technique. ñaq force. force éliminer la technique. yow yaa yor force bi kon. waaw kom que da nga ne. Ah, dañ ne borom technique la. waaw dañ ne borom technique la ñàkk ñu les forces. waaw boole ko di ko wax la Piranha de Thiaroye. la Piranha de Thiaroye. yaay Piranha wu Thiaroye. Piranha. Piranha mooy la benn jën la. le neuf ci quatre suuf boobu mu ñëw argument boobu logo boobu. dina feeñ askan bi xam ne carrément 2012 laa ko doon dégg. ñu ñëw 2020. waaw kon nag ñàkk jariñu bu ko raw day ñëw. day day gis jën bi fors force. waaw ci quatre suñu borom. li yàlla maye bu ko nanguwul ci quatre suba nañ koy duma daan ko yóbbu ko waa Thiaré. yaa wax li ci Alioune Seye. wax lii te lu ma gën a yàgg mu gën a métti ci moom. ci moom lu tax loolu. waaw parce que li nekk ci man ak li may yëg moom laa mën a wax te xam naa ne moment bii ñu toll nii waa Thiaré dañ may yónni yàkkamti ma te di ma la waxee dëgg askanu Thiaré gépp gox Thiaré gépp dañoo mubli na ñàkk yow la. xam nga ki waaw ndeysaan ma gën a kontaan ci loolu mu suñu papa. Khadim Samb. daf lu réy si làmb dem tey xool ñaari xale yoo xam ci amaana non loolu du hasard. daa mel ni neex na de. waa trop. bés boobu looy maye. waa li may am cëpp cëpp bi xam nga danga am say façon. waaw bii moom xaw a bajantu nii doo bajantu nii. passé ci rib carab la woon. waaw la. waaw dawal mbaa nga dee. loolu koy defee wan ma ci dara. waaw xam nga lu waral ma euh, la si benn baat bii ma lay wax nii. baat bu am solo la mooy. ki ñu topp. ak ki toppaate mënuñu yem. ki ñu topp ak ki toppaate. tey man dañ ma topp caare mbooloo gi askanu caare gi topp mu ginnaaw écrit bu ma nekk ñuy jël seen propre mooy ay mbër yoo xam ne ñii samay raq ñii samay moroom lañ di def ci man topp sama ginnaaw moom dafa toppee. Alizé daa topp. man dañ ma topp. te moom des koo topp yow yow dañ laa topp moom topp. waaw ki ñu topp nag. ndam rek ko arrangé. kon ñàkk ba la neuf. cëy dawal mbaa. dawal ndeysaan. waaye nii di dugg ci biir. pour def seenu jàkkaarloo. gaa yaa ngi réglé porte bi du ci mën a ñàkk maa ngi leen di ziar maa am ngeen jàmm naka yëngu yi mbër tur Pokola. yow maa ngi lay bëgg koy bëree. Kalso laay bëree. Kalso ngay bëree. ok yow koy bëree. <laughs> nga yor am na solo mbër bëgg naa la. te loo bëgg wax ci kaw sax mbër maa ngi lay ziar. loolu ziar waalam saar la. koy bëreel yow. Modou Kaana. Modou laati sax. fils de la jóge waa Kër Sitta acca mën naa ne de xool ko lu mu bëgg a def maar chef mais respect de. jaajëf Saourou Fall day réglé loolu moom ndóoy ndóoy borom Pikine ndooy bu sëñ Modou ñaa sëlmu mar boo yow di nga sëlmu mas ngaa def lii xëy nii di sëlmu suba teel boo yeewatee ci neex nag mooy sédiment laa gis ci sponsor bi muy lu rafet macha allah loolu day jàppale lamb yàlla mbin maa genn ma séeréer séeréer saafara la dégg da ngay da maa ngi dëkk Pambal maa ngi nuyu sama mbokku séeréer yi ku nekk mi te yàgg na ko te ku la. tur bi booy Pambal. ñi laa bëgg ñu xam la man xam naa la mais am ñoo xam ne ñoo la war a xam ñi lay seetaan kee moom am na lu koy defal maar. maa leen di ñi de waa Géejawaay la daa mel ni kii du mbës. yàlla lépp jàmm. bourse école takk de ay looy takk nii. takk lay takkal. nga koy takk wóor na. ci ngi nii bu daaw def nga xam ne ki rakku <laughs> bu mën a xeex. ngay bëreel da loxo. <laughs> Oh, baal tooñ baal tooñ waay ñu ngay sottil ñaq ñu ngay sottil ñaq ñaq ngi noonu xam nga kii di ñëw ñaar ñi xam nga leen <laughs> mu du Juuf ak buur géwél <laughs> buur de saalikum julli yàlla dégg ñu koy nuyoo. ah Babacar sànq rek maa ngi lay seetaan maa ngi lay seetaan sànq. Jackson ak Teneng. wallaay ndeysaan ñaar na xamante ngeen. kay waxuma. da nga am ñetteel te yëguma ko. ci lislaam laay dox. ngóor si li ma sant ngoom ma sant Diouf a tax mu di ma dóori xeer. mais Xaadim Samb ne ci rajo télévision bàyyi ko ñëw tey di tëgg làmb def lii mu def ma gis ay sponsor yu mag ay sëriñ mag yëpp ñëw jàppale ko yow looy wax ci loolu en tant que communicateur mais en tant que nitu presse. mais làmb koy delloo làmb làmb koy rendre hommage Xaadim ah. bu ñu fàtte que dafa nekkoon au service de la lutte presque pendant quarante ans koo xam ne da nga naan andi ki mbër di ànd ak ñoom Boy Naar Fall. dibiteri Baye Maari dégg nga ko ca boobu jamono mbër yu mag yëpp fa lañ daan fréquenté ak manager yi bari na ci combat yu bëri yoo xam ne fa lañ ko daan taxawalee xaadim jóge ci loolu ñëw di ànd ak mbër yi nekk ci rajo télévision bu Sénégal kon tey bu jëlee retraite am bu ko neexoon dem noppalu ji waaye day wane ni que rek bëgg na làmb avancé tey mu bàyyi léppam bàyyi ab coonoom bàyyi bàyyi noflaayam ñëw jëlaat ay millions dugal ko ci làmb donc ci yoon ni sponsor yi taxawee noonu la war a taxawee te na sax na ñëpp war a ñëw ñëpp war a ñëw Babacar yow itam yaa ngi ci biir affaire yi yaakaar na yaa ngi ci presse bi lii loo ciy sànni ci Xaadim Samb laaj nga ma Babacar ci lu ma neex ngay sànn ndax kooku nga wax muy père Xaadim Samb moom dañoo tedd ci làmb lu du ma ko wax sax xaadim sàmm maa moom Fall la ñuy waxante ndax booy naar Fall ndax daan na wax ne Fall nee na ma làmb du ak maas dabante la yàgg dama ko wax ba tax daf ne ma lii li muy rëy rëy mu ne damaa jël communication jébbal la. loolu daw na yaram. wax ma loolu. mu ne ah fekke ma ko mu ne yow nga di sama doom te dama laa fonk. xam ci làmb nee lii sax tollatoo ci ci làmb nag journée bii ñu ne xaadim mooy mooy dama ne génn làmb mooy année de gloire yi mu def yëpp da koy tënk tey tëgg ko làmb ndax nee na yàgg nañ koo xam waaye buñ ko xamee yenn xam ni làmb tax làmb tax kon moom mu ngi delloo njukkal làmb ndax sponsor yi moo tax lii moo la wane ne dawuñu noonu sponsor yi dawuñu noonu waaye lan moo tax ñu dëppaat ñëw ci journée Khadim Samb ci nit ki la ci approche communication bi muy def ak ñoom la wala quest qui se passe pour yow lu xew ko lu waral loolu. je me pose la question c'est une grande question que je pose comme tontu bi nag wax ma waaw. kontaan naa ci yow. waaw Carrefour naa am nga tontu bi. ah déet tontu bi kay xanaa muy buur géwél wala parce que yéenay samay ancêtres. sponsor santul sponsor dafa sant ni Babacar sant dafa sant ngom ni. santul joom santul juuf de. kon nag ki koy wut te xam noo koy wutee ci yar ci teggin ah moo ko mën a am jërëjëf. Maar. ah sama xarit a ngi nii nag le roi de de yaa yaa moom Gambie moom réew mi. ci loolu loolu mais ci loo sant yàlla bu baax mbaa am nga jàmm. maa ngi sant bu baax. naka Géejawaay. Géejawaay gi neex rek. sa profil sax da nga koo changé def ci Alioune Seye 2. sama rakk la sama frère. man moom ba Gambia man moom ba Casamance man moom ba Tamba man moom ba Diourbel man moom ba Mali waaw. dem ngeen Mali ci bés bi. ma Aliou Seye moom bu fu fu ma am bis rek moo ma yóbbu. sama rakk la. ma rakk la nii rek noonu rek a dama ci. nii rek nga ko mënal. rek sama rakk la. ah yàlla na yàlla suturaat ah yàlla na ko yàlla jàppale. nga rek. war sa kanam kenn looy nuróol nii. bàyyi la wuli leerul. sa comment wuli leerul. yow nga daan wuli. waaye di sayt moom day jógee grand théâtre di jàdd di ma ko xamal su ma ko waxee dëkk bi lakk. buur moytul liiru moytul liiru pokola nga ne kaay maar kii jarbaatu Ama Baldé la pokola pikin wala waaw koy bëreel am sita jarbaatu Ama Baldé la simple ñax mi lañ lay gunge. moo rëy moo tax ma ko li nga wax moo rëy moo tax. mais dañ lay gunge de kon amul loo mën ci moom. ok c' est a xaaral ma fi yow xaaral ma fi rek. li mu andi tuuti mos mu. bés a bés nekk. Dias. Dias a ngi nii. billahi lamb tërëj rek. Ah. man maa la. waaye bu lamb tëddul fu mu war a tëdd. laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam kii daanaka kullu fadlin la. lamb tërëj rek. wala borom sikatu buy sikk moom bii muy noog sikat. man nga yàq yow lii. suñu war a ngoog moom buur si lay bëreel. ama seen senior école it Mor Fadam ama ngoo ngi ñëw waaw kii moom boo ko ne liggéey na moom champion champion ci loo ne tey gaynde yi lépp jàmm sax am nga jàmm sant Cheikh Fall wér ana waa Guédiawaye fa am nga combat de waaw bu am naa combat bu rëy ah, sant yàlla waaw sant yàlla bu baax hmm. yàlla baax na Bour nga ko de xam naa ne waaw champion la hmm. ah. champion lay dajal de waaw ñoom comme na ne jël favori bi ma lamb jàll yow yaay outsider bi teewlu am problème. Mhm. mag maa ngi nii waaw may mag. mag maa ngi nii waaw lii lii lii yaay bagage ma gars yi jox la ah. ko waaw. Ah, <laughs> jeex na daal naa ci noppi man ñoo far amal jàmm. am na luñ koy defal de. cey làmb ki bagaasam. waaye Père Max noonu na benn ñaari ndamay dugg waaye benn ay génn de saa yu ñibbi jotee am ku mu lëng ah loolu de yàllaay xam Oudou Moustapha Guèye kaay ànd ak mbay guy gi ak Abdou Laat de ngi suy mbay di suy eh way ndaw buur bëgg naa la. waaw ñu ngi lay siyaar baaba. ci loonee. sant sëñ Touba rek. am na seen siñoor nga am de. waaw ragaluñu loolu. Hmm. waaw nee na jox na la favori beeg lépp. non na jël ba bés ba. waaw. Xaadim Sam tëgg seen làmb loo koy wax. waa di kontaan si moom rek suñu papa rek di ko ñaanal mu réussir si bés bi ñu ñaan ndam si si kaw ama seen si ñoom waaw. ndam ngay ñaan ndam waaw. Mbaye day gàddu <laughs> daal moo jaaxal réew mi Mbaye borom bés bi.